quand même consensus bi nga xam ne mën nañu jàpp que acteurs yëpp d'accord nañ ci mooy la haute cour de de justice mm-hmm. la cour constitutionnelle réformer euh, le code pénal mm-hmm. euh, xoolaat euh, si yenn aspects yi surtout que mu am un juge de liberté de détention lu nar euh, lu bees la dina indi changement yu bari en matière de de procédure pénale bon maintenant consensus bi je pense que quand même jar na nit ñi souligner que c'est bu ñu xoolee ci suñu histoire assise les conclusions des assises de l'époque hmm. c'est pratiquement ça les conclusions des assises et loolu c'est un pas quand même important su justice bi euh, amee institution yooyu cour de la justice cour euh, constitutionnelle ak euh, une révision du du du code pénal maintenant am na quand benn benn benn difficulté majeure amul consensus ci conseil supérieur de la magistrature mhm. loolu euh, président euh, ñëpp wax nañ ko waxul euh, waaw waxul déet il n'en fait pas une obsession mën na génn comme ah. mën na mën na mën na des mhm. nant la difficulté mooy les magistrats magistrats yi ñoo ñoo àndul ci loolu ku président génn Mm-hmm. waaw léegi nag président nee na dina leen déglu que ñëpp di war nañu leen déglu xam euh, lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu laaj ñoom tamit je pense que pour man peut-être foofu lu qui est important mooy que président nee na il faut donner des arguments il faut que mm-hmm. les magistrats ah. donnent des arguments pour dire que président bi dafa war a toog mu bañ a mm-hmm. nekk une histoire de carrière de des des magistrats su dee une histoire de carrière amoon mon avis le président doit euh, défendre un corps ah que ce serait injuste de défendre un corps au détriment d'une d'une de la justice euh, hmm. des principes euh, généraux maintenant aspect bi nga xam ne man li ma gën a ragal mooy que euh, magistrats yi dañu bëgg a am garantie hmm. président bu demee naka lay demee qui va présider ce ce conseil est-ce que du nekk guerre entre magistrats est-ce que du nekk guerre magistrats juges les autres mais dans tous les cas pour man je suis d'accord il faut que ñu joxe des arguments plausibles mu am débat contradictoire mais sur le principe président dafa war a jóge à la tête du conseil supérieur parce que quand même euh, le, les réformes systémiques là ça commence par là il faut que la justice soit indépendante moom il sera le chef de l'État il gardera toutes les pré prérogatives du des chef de du chef de l'État ñu am une justice indépendante mais on n'a pas parlé beaucoup du pouvoir législatif alors que pour man ba pour la réforme de la justice warul bàyyi assemblée ni mu mel nii on a gis nañu ñëpp coow règlement intérieur code depuis trois semaines on ne parle que du règlement intérieur